al asalaamaaleykum sama réew man la mataar Lo fii ci Angleterre di leen wax kan mooy sunu maam Lat Joor Ngoone Latiir Kuli Jóob saa xewar calaw yaasin ma gis jàmm geetoo geet geet njaajaan njaay aboo daadaar Lat Joor mu ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Amadou Yàlla Lat Joor xeex naa tubaab bi ci saq xeex ak tubaab bi ci jàjj xeex ak tubaab bi ci mexe bu njëkk xeex ak tubaab bi ci mexe bu mujj xeex ak tubaab bi ci ngol-ngol dàq leen ñëw looro tubaab bi rayal ku lu bëri moom Lat Joor Ngoone Latiir boobu la tubaab bi njëkk a utiliser li nga xam ne mooy canon amoon na fi waaye utiliser wu ko mu rayal ko lu bëri fa canon ba samp woon tey ci looro boo fa demee garab mënu faa sax ba tey Lat Joor perte loolu Kajoor gépp ne loos mu ne nërëm mu ne nag lan laay def ñu ne ko xanaa ñu ànd dem ci sunu ki nga xamante ne mooy almaami Maba Ba mu ne dëgg la ndax almaami Maba Jaxu Ba keroog bañ koy jugé mu mu jël bakkanu cerdo ba def légitime défense keroog yaayam daa def ca ca ca ca cotisation ba muy Ngoone Latir mi jur Lat Joor kóllëre googu moo tax Lat Joor ak Almaami Maba Ba nekk ay kóllëre Lat Joor fabu ànd ak Demba War Joor muy Demba War Sàll ànd ak wul di faati géwalam ba ñu takk jëm fi nga xamante ni mooy Saalum waaye nag tubaab bi bind Buur Siin Kumba Ndoofeen fànneen ne ko ki nga xam ne mooy Lat Joor dina fi jaar wax ko lu mu meree ndax daa gaaw a gis boppam te Almaami Maba jox Ba ñu bind ko leer ne ko buy fat Lat Joor boo ko fatee ñun tubaab la attaqué ah la jor ñeu jaar ci Bour ko mo neuf fàddeen Bour Sine nako kon yow bi yaay jor so tuti way bi yow yow yow ya sonal Kajoor ak Bawol mu deg la jor la jor yow mi la yow da nga luubu matoo buur la jor mer gis bopom ci lolu ne sama fas wi de ma nga neex la tuddoon way bis na ko tey tuddee naa ndax lu garab mën a rek non la ko malaw meuna gore mu nako wax lu mu nako baye mak sama bop mu war fasam jëm fi nga xam ne mooy ah ma ba joxu ba yegne ne jor ngone la Lat ñew mu yabal taalibeem ba barhab Cissé ne ko Lat Joor balaa dugg na d'accord yi mana tégal moy tegal nawat na wat rastam na tuub nangoo dugg ci din lislaam ma fat ko ndax ma ba joxu ba alcorane la fi nekkalon ak sunna ah mu ne ko bis bu la jor nanguulee tup yeen ñaar ngeen xex ba ku mën sa morom ñu wax ci mako ah ki nga xamni moy mooy Cissé dem na gis convoi bi ñew nañ kum na nam job nga ne ko du ma jóob jóobang mu ñew ci wuldu faat ne ko naam jóob mu ne ko jóobang si ginnaaw du job mu ñew ci nga xamanteni moy mooy demb waar jóob demb waar sàll ne ko naam jóob mu ne ko du ma jóob jóobang ci ginnaaw lu doonam sa tank mu ne ko almaan ba joxu ba sama serigne mo wax ma len waye nak la jor bu bëggee dugg ci ak ñew nek ci alman ma ba joxu ba mu fat ko bañu ko waye na nangoo dugg ci diina l'islam wat li nga xamanteni moy rastam bu ko deful ñu xex mak mom ba ku mën sa morom ñu wax ci ko nga xamanteni moy almaami Maba Jaxu Ba Lat Joor ne ko man de du ma tuub Demba War ne ko déet Lat Joor tuubal sa karaw gii boo ko watee day saqaat tuubal bu ñu ñibbee Kajoor nekk ci liñ nekkoon nañu jàppale ba ñu jot suñu nguur ko moo wax nga dëgg mu agsi almaami Maba Jaxu Ba tuubal ko wat rastaam tuddee ko silmaxa mu ne silmaxa naa ci lépp lu ma nekkoon moom Lat Joor Ngoone Latiir mu ne ñi nga xamante ni mooy taalibe Maba Jaxu Ba laaj leen na leen kan moo gën a sonal sama sëriñ bii di almaami Maba Jaxu Ba nitu yàlla bi ñu ne ko xanaa saalum do saa suñu fa yalwaani jee dañ ñuy jàpp di ñu sonal ak di jàpp suñu ay taalibe mu ne fan ci saalum ceddo ñu ne ko xanaa buru wàllu yaabe mu takk wutali buru wàllu yaabe ne wul du faati tëggal ndënd mi sarax ndongo jaay baabu tibbab dooleem wul du faati tëgg ndënd mi ne sarax ndongo jaay baabu tibbab dooleem buru wàllu yaabe ne ko pëkkalu bur bu toll ni yow bi sarax fukki nag laa koy sarax mu ne ko xet naa loolu la jor juge jugee ci fa bi mu jugee paate bajaam ne ku sonal sama sëriñ ñu ne xanaa buuru wàllu yaabe ku dem waliyaabe mom la jor ngone defat même ray ko ray buur bu andi lepp luñ am ci alal mu jox ki nga xamanteni moy mooy almaami Maba Jaxu Ba waaye nag buuru ñaani dégg loolu nag préparé wu ko tek armam yo ya ci pencu ma taxaw di xaar la jor ngone la tim la jor tak wutale ñaani ak armée bi ñu dem ñaani keroog bi muy jup ci ñaani la né wul du faati waa lan la li di ñul di tak di melax ni mu ko xana la ay fatalam la fi tek mu songu buru ñaani ne wul du faati tëggal bi sarax ndonga jaay maa mu buru ñaané nako ko ponkalum buur bu tan yow buy saraxu balu dóob la ko sarax mu ré la jot ne kii rek a xam sama sarax xex ak buru ñaané xex ak buru ñaané ba ngon jot mu dakk buru ñaané ak ñim andal ñep ñu jekk gisatu len yambu yi mel ni kër kër kër di ray fasi di len mat ak di mat nit ñi la jor latir ne lii lu mu ñu ne ko da yambu la mu na xara yambu taal baax na ci mu na waaw mu na kon nañu taal fep bu kenn dëkk ko dess dess des ku dund xamni dund ko mom la jor la latir mu taal dëkk ba moom Lat Joor Ngoone Latiir wul du faati tëgg ndënd mi ne ko ñaani bañ na nanu ñibbi loolu moo indi wayu ñaani bii ngeen di dégg kooku mooy Lat Joor Ngoone Latiir keroog bi mu ñibbisee almaami ma ba jox ba nekkoon ko nag silmaxa dama lay ñaanal te yeewi la ndax tuub gi may tuubali ji bar siin xam naa ne fa laay des duma ma dellu si muy Buur Siin Kumba Ndoofeen Fandeen keroog la Lat Joor di ñibbi jaar dëkk Buur Siin Kumba Ndoofeen Fandeen Buur Siin nekk fa di jongal di dugal néewu góor góor ñi Lat Joor taal dëkk ba rey fa ñu bëri ñu jël Buur Siin yàpp ko ci fasu naaru góor rawale ko Buur Siin bu bind ki nga xam ne mooy almaami Maba Jaxu Ba lettre na ko góor du bette ba jotee ki nga xam ne mooy almaami Maba Jaxu Ba ñu daje ci la euh, la bataille de Somme mu jël ki nga xam ne mooy bakkanu almaami Maba Jaxu Ba Lat Joor Ngoone Latiir jóge fa ñibbi defaraat sal fal ki nga xamante ni mooy Kumba Jaari ca Jaari fal ñëpp ñu war a fal waaye falul almaami ba jox euh, fal falul ki nga xam ne mooy Demba War Joor Demba War mer loolu yaayu yaayu Lat Joor Ngoone Latiir ñëw ci moom ne ko sa mbokk yi nga jiwan loolu rek ma metti moo tax may jooy ndax xam naa ne looy metti ci Kajoor ñoo la koy teg ki xam ni mooy Demba War joor bind tubaab bi lettre ne leen ki leen sonal muy Lat Joor Ngoone Latir bu ngeen bu ngeen bu ma fexee ba mu dee lan ngeen def tubaab bi wëlbati lettre bind ko ne ko lépp luy nit ku nit ku ñuul nguuram yaay fal di folli bu boobaa mun leen ko fekk leen ma ci déqale ñu préparé ki nga xamante ne mooy tubaab bi atum wër-wër loo mi ngeen dégg mu dem ci saax fekk Lat Joor saax sangu na ci ci xàmb yi ba génn ñu jëm fi nga xamante ni mooy jaaj ji lajoor sangu ci xamb yi ci jaaj ba génn ñu jëm ngay lajoor sangu ngay ci sa euh, xamb yi ba génn juwaloog ñoom am ku leen dab na lajoor hëy lajoor euh, taxaw mook jàmbawaar mu ne leen tubaab bi de ñu ngi noonu nee nañ jaaj ñu ngi jëm sa kër gi nga xamante ni mooy ca déqale pour jàpp ji ja rey jaami jàpp lingeer yi ah lajoor ngoone latir dawal fasam bëgg leen a fekk ji ki nga xamante ni mooy Demba War ne ko sëriñ bi bi nga xamante ni mu ngi fii Nambàkke nanu fi jaar muy sëriñ Touba keroog bu ñëwee fekk sëñ Touba julli ñaar rakk pare toog ci der bi mm, sëñ Touba ne ko garmi bi doxe nga naaj ji la jor ne ko sa baay man de Touba bi lañ ma wax ne ma ñoo jëm déqale bëgg faa yàq ma bëgg nga ñaanal ma ma dem jëflante ak ñoom sëñ Touba ne ko mm, dinaa la ñaanal waaye nga toog ma jañ foofu ba nga xam ne xat sax du fa damm la jor ne ko saa bàyyi man la man la gi daa bëri ba mënatumaa dellu ginnaaw sëñ Touba ne ko jàllal fi ma defal la li gën li ma defal Ibra la jor ne man la man la gi daa bëri sëñ Touba ñaanal ko yëkkat turki njaaram jox ko mu sol moom la jor na ko nag booy xeex ak ñoom del wax allahu akbar waaye la jor keroog ba mu demee déqale ne xëy ba tubaab yëpp ges mu dóor bu dóoree ci benn fetal nga xam ne baatin am na day dóor fanweer tubaab ne lasam mu dóoraat moom la jor ne allahu akbar waaye bi mu dóoree ne kor jooroo joor la ko balu ginnaaw bi ñëwee ndax Demba daa xuus ci biir nit ñi wul di faati ne ko fetalal Demba War war la de la bëgg kii fu mu jëm ci sa biir noonu yi ndax Demba War rek xamoon bal bi koy rey kenn xamu ko woon la jor ne damaa sol mbubum dee tey war koo simlijee àlaxira tey dama bëgg a jullijee timis ak ki nga xamante mooy suma sëriñ ba almaan ma ba joxu ba Demba War dóor ko bal bi moom la jor mu ne lësam daanu toog ba pare ne saay-saay si ñettam nañ ma ne ki nga xam ne mooy wul di faati ak ak ak gaay soxal leen ma ñu sox bal mu bëgg a dóor ne nësam ne tekk leen téere bopp bi sama bopp bu ngeen ko tekkul du ma sedd ñu tekki téere bopp bi mu sedd ñu jël la joor làq ko tubaab bi ñëw di ko wër néewam pour bëgg a dagg bopp bi comme ni ñu defoon jéeri joor ndee la almaami mabba joxu ba ne leen euh, euh, euh, dembawaar joor ne leen dem leen suuli seen i néew ma jël sama néew suul sinon li ma ko def mun naa leen ko def tubaab bi ne waaw waaye daa waxoon ni maalaw du gis raay bi may ñu yóbbu maalaw mu gis raay bi fekk maalo boobu fetal nañ ko ba mu sonn waaye comme naaru góor la tant que teg tekki woo ko takk du dee naaru góor mën naa dee nga nga koy war muy dem naaru góor bi biñ doxee ba ba teggi teg bi si la daanu ne nasam loola tax ñu ne maalaw daa xaru gisul raay bi kooku mooy la jor ngóone latir borom jàmbaar ju jàmbaar ju rëy jàngoog keroog bi mu dàqee tubaab bi ba puut daf ne fii la kajoor yam ku ma fiy dëkkal wul du faat ne ko xanaa maali kumba jaari borom fit wu rëy bi ñu dëkkal fa maali kumba jaari loola tax ngeen dégg ñaan puut bu maali kumba jaari Le héros national, Il a fait 22 batailles avec les Blancs. 23 dames, c'est lui seulement qui est nord de Diop. Donc bravo Ladjor. Merci sur nous, Mme Ngone